bon xam nga man euh, dama yàgg gëm ni politique moom boo koy def toujours il faut que ngay am avance si nit ñi mooy jamais amu si comme mën na ko def comme mun na ko bañ a def peut-être que ñu mérité si parti politique wala ñoo xam ne ils n'ont jamais été formés mën nañoo am ay suspicion euh, vie carrière bi Macky fi Macky Sall jaar yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp peut-être que ñenn ñi mun nañ ko bañ a xam mais dama doon xaar toujours que ni euh, Macky Sall mun na mun na bañ a présenté wu man option bi ma joxoon à à 70 pour cent dama xool ne boo du présenté mais amoon na fenn foo xam ne critère ni mu doon doxalee la mooy ku ne troisième mandat mu génnee la. acte yu doon posé acte yu mu doon posé parce que d' abord parce que connaissant un petit peu Macky parce que yàlla def na bokkoon nañ coalition muy CAP 21 moom mu nekk euh, PDS ñu ñu nekk ànd yëf ñu ànd di liggéey euh, jaar-jaar bi mu am maire directeur ministre. président assemblée ba ak si président de la république kooku expérience bi mu am sax Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak Senghor amuñu ko et troisièmement que bu dee teraanga yàlla may na ko parce que il suffit que nga xas ba nekk maire nga xas ba nekk directeur général rek nekk ministre ba ak président assemblée ak président defe naa jaratul yenn yi nga koy xëccoo il faut nga am hauteur ak honneur et puis foofu c'est à saluer parce que c'est un exemple pour au Sénégal pour régler la question de de de deux mandats yoo xam ne mu nekk maintenant ba tey à l' article l' article bi dafa war am ay disposition transitoires yoo xam ne war nañ ko gën a ñoŋal parce que on parce que constitution bi yàgg naa wax ni nous nos lois ni ñu koy règle réguler dafa dafa leeragul mais jot na pour ñu càmbaraat constitution boo xam ne day méngoog jamono parce que suñu constitution yi dafa tënku ci cinquième république bu France mooy bi de Gaulle woon bi muy wax gars yi pour ñu dem indépendance en 1959 ba gars yi ñëw si 62 ainsi de suite ainsi de suite kon question yooyu lu ñu war a rek la mooy prochain président bii ñëw war nañ mën a ñoŋal nag la réalité sénégalaise plus lu ñuy jël mën a tënk constitution boo xam ne dafay mën yenn werante dootul am parce que y a beaucoup de manquements sur certaines lois yoo xam ne yu ñu a réglementer mais c'est à saluer man je ne qui sont qui nekk di wax naan am na lii ak lii non jël na décision boo xam ne décision majeure la. Mhm. calmer na le jeu politique. maintenant c'est au hommes politiques ñi bëgg a jël réew mi c'est le moment nag d'imposer un débat programmatique. Mhm. dootul indexé mais d'abord ñi nga xam ne ñun ñi nekk ci kujje gi ñu ne carrément politique publique yi mu teg plan bi mu teg alternative plan bi la ñuy indi. ak nii la ñuy corriger ak nii ak nii foofu la ñuy xaar Sénégal sur le plan économique sur le plan social ku nekk li nga siy débattre et tamit est le moment nag de montrer que candidats yi xam ne nag c' est le moment d' imposer le nationalisme au Sénégal parce que régime yi fi jaar yëpp boo xool bi ñu jox dafa ne méngoog économie bu tra travesti travesti travesti euh, non attends xam nga man lañ poser question industrie Euh, pays industrialisé yëpp ngay gis muy muy muy Angleterre nga xam ne ñu bari dañuy jël modèle si moom dafa am fu mu commencé tëboo tëb rek am yow yàlla dala may ngay dugg ci air pétrole ak air gaz te dans te bu diagnostic yi ñu def yëpp ñun ñoo xam ne liggéey nañ secteur bi on a vu que peut-être que le Sénégal sera le deuxième pays producteur de gaz kon donc pour nga mën a am ay industrie il faut d'abord yi fi nekk ak groupe yi fi nekk y a des gens yoo xam ne ils ont investi Sénégal mun naa si citer comme ay Ablaye Sylla comme d' abord club yi yeneen yi am nga xam ne MEDES yor leen ñooñu ils ont des industries ñooñu boo leen accompagner boole leen ci mbir bi xoolaat code des marchés nga mën a industrialiser sa dëkk mais fekkee ne da nga fi bàyyi lépp loo gis lépp loo ñëw mooy président boo xam ne dañu koy indi nga xam ne intérêt particulier yi ak ñeneen ñi lay défendre yoo dina am problème bu ñu indi moo tax nag ma ne la c' est le moment nag de mettre en place benn débat autour des questions essentielles président bi ñuy indi dootul mhm. doonati un président politique ou un président di naan société civile wala kër gi mais un président boo xam ne dafay am une vision claire très bien bon